bu dara doon sukkaraat téeméeri at Cheikh Ibrahima ne day toog ci wetam di ko xool rek. ndax rus na jëfandikoo la ko yàlla santul ndax moom ci medd lañ teg mbiram. Hmm. daan ne mu nag yéen da ngeen a yàkkamti lépp. xam nga xale yi da gis xale bu am 30 ans milliard. Hmm. <laughs> bu ko amee ndox ñetti at nga dégg ne dee na. ndax Cheikh Ibrahima nee na yuréet moom pëng rek. yàlla nañu yàlla musal ci doom dee leen ñaan wërsëgu sawum gëléem hmm. wërsëgu sawum gëléem hmm. nee na gëléem danaan carararaar ba nga ne e mu mel ni da koo dégg taxaw dañ na xanaa dootul saw ba nga ne gëléem gi xanaa dootul saw <laughs> ma commencé naan car nga ne waaye daa mel damaa dégg mais wërsëg bu demee noonu rek borom dana gudd fan. waaw nee na moo tax gëlëm yàgg fi. day am kattan te yàgg. gaa raw ñëpp laa la wax. ku dul sëñ Touba moo la raw. waxul lu tax ne liñ gis mooy loolu arrangé wu leen ñoom. waaw kay fi ne nii ñoom. liñ gis moom mooy moom yuréel rek. fi ne ci yàlla musal. lu indi lu indi waru bi ci moom. Mhm. waaw kay ñu waru lool lool sax loolu nag danaa ci ñëw. Mhm. waaye daa wax ne tan dama ko bëgg a dimbalee gone yi. Mhm. ndax ñu xam ne Cheikh Ibra jeunesse bi nii. Hmm. Cheikh Ibra lañ leen war a jàngal bàyyi yi ñu leen di wax di leen feccloo di leen foloo. di hmm. leen dugal ci yu leen dul jariñ dara ndax xale yi dañu bëgg lu baax. Hmm, te boo koy wax ñu koy xam. ndax Cheikh Ibra dane nag gone yi roy ci tànn rek waaye tam. nee na bu toogee ba ruuga rot. te daal di jëm. waaw. ne day wooye ay bokkam. waaw teg na sàmm bi. ko wax loolu ku ne ci àll bi xam nga. daan ne tan day wëri ay bokkam. Hmm. daan ne doom kenn ko ne fu say bokk ne xam nga ko. waaw hmm, hmm, ne day wëri ay bokkam. su wëree woo leen. woowaale kilifa bi. ne bu ñëwee du nuróog yi cet yi day weex tànk yi weex baat bi weex. mu ne mbokkam yëpp taxaw leen ne nit ku baax day am kilifa. <laughs> bàyyi leen ko ba mu jëfandikoo ba noppi. waaw mais bu jëfandikoo ba naaw du ne man tam bàyyi leen ma jëfandikoo maa ko gisoon danaa nañ ko bokk. moom laa ko gisee. waaye Cheikh Ibrahima nee na. Hmm. kuy def loo am say bokk duñ ci mos. Hmm. si kilifa du ci mos. Hmm. booy faatu da lay bett. muy Tawfekh ju rëy kenn xamul